xamak ma ngi caali fanaa xuróoro ndawal boroom dar woo ko mbar ma muuru yet nang yoroon nga naan ko ñaanil dappeel boroom daru gan am na moo lay appal 5 septembre téeméeri at ak ñaar fukk ak ñett ci atum nasaraan yé mook téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci gàddaay gi ci la cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul julle woon ci bureau gouverneur ca ndar ngir sigil islaam xew-xew bu màgg boobu nag taarix dootu ko mës a fàtte tax na nag ñu koy fàttaliku at mu jot ca bërëb bee ak dëkk bee nga xam ne foofee la amee muy Saint-Louis di Sénégal wala Ndar Géej Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nekkoon doone yonent bi salallaahu taala alayhi wa nekkoon jëmm joo xam ne ni dundam gépp mu ko jeexal ci jaamu yàlla liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sangoom ba lii nag taxoon na mu jaayante woon ak boromam ngir am grade gu kenn mësul am muy xaadim rasulillahi grade gi nag bariwoon ay góor yàlla yu ko xemmem waaye njëggataleen lool cheikh ahmadou bamba daal koy am jaayante kook boromam lii nag moo waral ak jaxasoom ak nasaraan si diggante sëriñ Touba xaadim rasul ak nasaraan si nekk diggante bu yàgg lool te metti woon lool bisub 5 bi ñuy fàttalikoo julli gi benn la ci ràññeeku ci lool mu ko doon amale nag ci Saint-Louis du Sénégal wala ndar Saint-Louis du Sénégal wala ndar géej nekkoon dëkk boo xam ne itam bu amoon wàccuwaay la ci ci Afrique sowu jant ci jamonoy nasaraan yi ñu sanc ko ci atum 1659 mu nekkoon nag bërëb bi nga xam ne nii fii la nasaraan si jëkk a taxawal seenub capital fii ci Afrique sowu jant maanaam AOF Afrique occidentale française lëkkale nag ay réew yi di Sénégal Mauritanie Soudan Côte d'Ivoire ak Guinée mu nekkan itam capitalu AOF diggante 1895 ba 1902 waaye nekkoon capitalu senegal ba 1957. kon li dey mandargaal ne ndar nekkoon na dëkk bi nga xam ne nii fii la nasaraan yi nekkoon mboolem wànqaas yi gën a kawe ci jamono yooyu ci saytu ak nooteleeg Afrique fii lañ ko sampoon ngir mën a saytu nag mboolem Afrique sowu jant ak li ko wër. bu nu dellu si waatee tuuti ci diggante Serigne Touba Xaadim Rasoul ak tubaab bi ay tuuma. ak ay ñaaw njort rek lañ amoon ci moom ba taxoon ñu ne dañ koo teg loxo lépp nag mu ngi tàmbali le 10 août 1895 yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum 1313 sa Sasine di mandargaal màggaluk Touba. foofee ca Mbàkke Baari la Serigne Touba Cheikhul Khadim jote woon ndigalal boroomam ngir soobu nag dem liggéey yi wetilu ko yenent bi ci la daal di nag ànd na nasaraan yi jaar jeewal ak xew-xewam ba mu ñëwee fii ci Ndar 5 septembre nag nekk bis bi nga xam ne nii. ci la jullee woon julleem ku màgg gilee julli gi nag Serigne Touba Cheikhul Khadim defe woon ko ci jamono yi nga xam ne nii gisub nasaraan doy na sëkk mbugal ci ay kemam waaye def ko nag ci kanam ñi nga xam ne ni jamono yooyu ñoo nekk noonu yàlla yi gën a ràññeeku muy nasaraan si. bis bi nag la fa amoon ci ay xew-xew bëri na lool taarix indee na ko nu nekk waaye li wér te wóor mooy Serigne Touba Cheikhul Khadim li mu bëggoon lépp ak li ko suñ borom santoon. def na ko ba mu sëkk ci kanam noonu yàlla yi waaye nasaraan si liñ bëggoon ci sëriñ bi dara amuñu ko ci seeni mbir dara sottew ci gannaaw loolu nag ci la ñu daal di defee seen atte bu jéng bi jël ay dogal ci sëriñ bi bokkoon na ci dogal yooyu nag faat sëriñ bi génne ko jamono waaye loole antuwut ñu amaat yenn pexe yoo xam ne ni bëri na mën nañ koo nettali bokk na ca gaynde ga ak fuur ba ak yeneen dara jubu ci ñu door a jël dogalab génne ko réew mi sorale ko ak ñoñam ngir fay taalub lislaam lii nag tax na gannaaw ndar mu jaar ndakaaru ak xew-xew ya fa am julli ci géej gi ngir jaamu yàlla di jëf joo xam ne ni jenn la te dootul masa am ba abadan ci anam yooyu nag la nasaraan yi wéyal seeni jéego ak seeni jëf seeni xalaat ak seen yéene muy faat sëriñ bi tàggale kook ñoñom fay lislaam ba faw juróom ñetti at mu nekk ak moom ci tukki bi liggéey liggéey bu am solo dem dikkaat am barke am garaat goo xam ne ni kenn mësu ko am muy xaadim rasul dem ñëw indi sëriñ ñëpp jariñu juróomi fan ci weeru septembre di bis bi nga xam ne ni tey jii moom la àdduna wërngal kapp rawatina jullit yi rawatina ñi nga xam ne ni ay murit lan yaakaar Serigne Touba Cheikhul Khadim di fàttalikoo julli gu am solo googu mu julli woon ci bureau gouverneur bu Ndar nekk na bis boo xam ne nii taarix dootu ko mas a fàtte ba abadan saa su nekk nag ñu koy màggale ci dëkk bi nga xam ne ni moo di Ndar Géej ay mbokki taalibe bàyyee ko fu ne ci réew mi ak bitim réew ngir ñëw nag barkeelu ci julli googu édition 2020 nag dajeek am mbas moo xam ne nii dafa am ci biir àdduna rawatina fii senegal tax na nag ñu màggale ko neneen bokk na ci noonu li Serigne Touba gënoon bëgg muy jàng alxuraanul karim julli ci yonent bi jàng xasaa it ñaan ci barkeb bis bu tedd bi ci barkeb jëmm ji tedd jooju ko defoon muy Serigne Touba Cheikhul Khadim suñ borom jële fi mbas mi màggal ak fàttaliku ñaari rakka yi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul julli woon ci bureau gouverneur bu Ndar le 5 septembre 1895 màggal ko ak fàttaliku ko bokk na ci nag waajal màggalu Tuubaa bis bi nga xam ne nii mooy texe àdduna ak laaxira nee na dogoonan jam nasraan mu tegoon billaahi ñëpp dem niiraani keroog la Bàmba fab yanam ba wétalu ko yàlla ba damaa yomba ngir ma dara mu jamono ba Tuubaa man bala di yan ba yan ba ñu yanoo xutbu ya ak daal ya te atanuñ ko moo fab raw gaaya dëngëñ ji wéy te balaaya